nee na ki ko tax a jóg nga xam ni moo leen yónni dafa yor làmmiñu kër yëpp kàddu gi la ci jublu muy sëriñ Falil Fall jëwriñu sëñ Modou Aminta ñi ngi ñaan suñu borom mu yàggal ak dundam te wéral ko sëriñ seex Dieng nee ki nu yónni ki waral bis bi lim doon ci moom xam nañ ko waaw yoolu dégg waaw waaw nee na ki waral bis bii muy sëriñ Cheikh Abdou dafa bokk ak ñëpp bokk ñu baax ñi waaye am lu mu beraloon jëwriñu Cheikh Ibra Fall ja muy Cheikh Mouhamadou Falil Fall di sëñ Modou Aminta ñi ngi ñaan su borom mu dolli ñu ko ay ngërëm mu dolli ñu leen ay ngërëm ci dara ji sëriñ Touba ji ak Cheikh Ibra Fall dara ji Cheikh Issa Dieng ñun ñii di wax ak yow Dieng am na ci loo xam ne xam nan ko dafa sàkkoon bis bëgg njabootu sëñ Modou Aminta Fall gépp ñu dàkk bis booba di ko gane si def nañ ko ñaari yoon ba ñetti yoon xanaa ñetti yoon waaw jenn fekke na ko ñetti yoon nee benn bala fekke bu mujj bi nee na moom mii am na loo xam ni nee ci moom la bokk da koo bëggoon fab indi ko fa moom waaye ba mu waxee moom dafa mel ni loola am na far nee ba amee nu kawe njort sëñ gañ nee xam ngeen ne fa nekk yéen lan fa nekkal di jenn nee ci ñeenti waxtu ak genn wàll lan jugoon yéen nag faru leen nelaw yéen waaye ñoo bokk rek de naam jenn waaw nee na kàddu yi da cee bëgg a noppal murid yi sëñ gañ bu kenn ku nekk jàppee ni lu waay def ci bis bi yow la ko defal nee di nga ko yàkkali ci sa lépp da ko yaatalit ci lépp nee su fa bee kàddu gi moom sëriñ Moustapha ci turu ki nga xam ni moo ko yebal muy Serigne lilu dafa am lu leen Serigne Bara Diène waxoon nag seen maam ja ñi ngi ñaan su borom mu dolli ko ay ngërëm at mu ne wax Ama Salsasin muy 1977 ci atum tubaab sëñ bi da leen yónni woon ca moom ñoom juróom-benn képp ñu fekk fu ñuy wax njënn lagan mu wax leen kàddu gi sëriñ Moustapha da bëgg a nettali da ni woon dama masa siyaara ji sama baay Seex Ibra ba may tàggoog moom mu ni ma baara jenn mu ne ko jenn mu ne ko dëgg-dëgg murit lu mu jige ab sëriñam bu mu fa dem ca wóowu ko ginnaaw sun maama nag moo tax Cheikh Moustapha tontu ko lii ko tontu woon mu ne ko man de jenn damaa yaakaaroon dëgg-dëgg murit day jige ab sëriñam di ko wéttili bu soxlaa yónni ko mu ne ko xam ne loolu seen maam moo nu ko waxoon alal nag ko ko indi ci am réew lu ci amul yoonanga ko war a laaj ci ak taali bi nag Cheikh Ibra Fall ko indi ci réew mi loolu sëñ Baara Jenn moo waxoon te nag waxal waa ji lu mu waxul moo gën a diis yenu asamaan nee moo leen waxoon li bisub altine juróom-ñett fan képp ca weer wa ca njenn lagan ca amasal sasin kon gii kër moom jenn ak kër gën bàyyi koo du ñaari kër du ñetti kër genn kër rek la kër Cheikh Issa Diène kër Cheikh Ibra Fall ndax mboolem leen fa nekk kaddu gu fa sëñ Baara wax buy tudd Cheikh Issa Diène Cheikh Issa la koy wooye waaye buy tudd Cheikh Ibra Fall nag danaan sama baay seexi Ibra ba noppi moo wax ci aw làmbañam ni bu Cheikh Ibra Fall daan laaj Cheikh Issa Diène danaan ana sama rakk ju baax ja léegi kin bàyyi ko ca moom bam ñëwee daa bëggoon aw doxinam rafet mu jaar fa kam bokkal bàyyi ndax kooku kii toog bàyyi la ci moom kee day maam doomi sëñ naar jenn na mu sëñ siidi jenn ak sëñ Modou Aminta Fall Cheikh Ibra Fall moo tax ku sant jenn bu yeboo nga ñaan jàmm ci réew mi nga nekk ndax lu ñëw yow doo ci mucc yow bu ñu dagg bopp yi ñu sant Mbàkke dagg seeni bopp yéen waa ñenne bu ñu dagg bopp paalin dagg seeni bopp kon ku yóbbu ñaan jàmm rek ndax lépp ñëpp ngeen bokkal fépp ngeen bokkal yéen waa ñenne kon nag jëwriñ njëkk yónni nee na mi ngi siyaare jëwriñ Seck saa jenn ji yoonu lislaam yëpp lislaam yëpp la koy siyaare rawatina nag yoonu murit rawatina waa kër Seck Issa ci turu jëwriñ ñi Seck Ibra Fall yónnee si woon fi démb ca ngoon sëñ daam sooda nee da bëgg ànd moom mu jox ko ngaan baatu la ma tëlee su ma xëyee nag faaw ma ñëw loolu am na nag fan kon lépp lu fi waay wax nee ci kër Seera Fall njabootu Seera Fall gi Cheikh Mourou Moustapha nga ko waxal jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji di am Amdi Fall Mourou Mbenda ñaan suñu borom mu yàggal ak dundam te wéral ko lool nee mi ngi tuub bàyyi ngañ cee jégglu kàddu yi dafa gudd nee da waroon nuyoo rek. joxe siyaare bii yem ca kepp ndax bu ñëpp defee ni moom jant bi so kon jonni nañ ñu ñaanal bu lu kenn tontu nee bu tontu ñoo wax ñoo tontu suñu bopp bàyyi nga bismillah amin sëñ Moustapha Mbar nee na na yen bi woyof toy ba mu àggale ko foo xam ne fii foogu ko ni ko yoon yu baaxoo yoon yu moo baaxoo léppam kanam la jëm ne amul tànk ginaaw kanam kanam rek la jëm kon nag dafi ëppale dafi gënle dafi gën a yàggale amin sëñ Moustapha sëriñ bi nee na li ñu waroon a tontu yëpp tontu nga ko wax nga ko. jërëjëf jërëjëf. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem.